abi la ñuy wax wala lan la ñuy wax wala acharnement tey ñu ñu arrêté ñaata nit lañ tey jii ku fi dem ci yoon ñibbi am na loo teg ci seen loxo donc arrestation yi li koy leeral mooy nañu dem ba tribunal ñu àtte tant que ñu tribunal man damay jàpp ni ay présumé rek ñoom ñoo fi nekk ba keroog nag ñuy teg ah, président te loolu nag li ñu ciy eh, xaar non sëñ Saliou même ma ñëw présumé innocent mais sëñ Saliou yaa ngi kontaan sëñ Saliou non présumé de quoi présumé innocent ou coupable mais allahuma amin yàlla na am ñu woo ñu loolu acharnement bi ñu wax non pour yow y a pas d'acharnement non c'est que la vie est claire c'est-à-dire aujourd'hui mën nga taxaw ne da ngay jël aussi Macky Sall si li nga wax ñu jël la. waaw nga ne man dama ko waxoon nii rek waxuma ko woon pour def lii. loolu bëgg wax léegi nag wax waxu guerrier parce que yaa ngi ak wax boo xam ni da nga ko wax. tuumaal nit ñu woo bu ñu la tëjee am na raison yu tax ñu woo la ñun ñu toog fii woowuñu ñu ñu ñi fi nekk woowuñu ñaata parti politique ñoo fi nekk woowuñu leen eh, il faut que tamit benn moment ñu am confiance ci li nga xam ne moo di nos autorités sëñ Saliou Ahmed Suzanne fii la toog fii ñu fi wax moo gën a grave boo xamante ne nii Fadilou Keïta a dit moins que ça Omar Faye soyez juste. mais d'accord mais non, les gens l'ont personne personne. les gens l'ont dénoncé non mais les gens l'ont dénoncé. il ne le dénoncent pas. non non non mais C'est xam non, xam nga mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on parle aujourd'hui d'acharnement parce que pour les mêmes propos on arrête certaines personnes et on laisse d'autres personnes loolu oustaz. waaw léegi Omar Ba li ñu wax benn la. léegi kenn ngeen ngi dox soxla am kii ngi prison quand même. waaw léegi nen gis nga ñun xam nga loolu lu ñu ciy def. Hmm. ñun population bi ñun dañuy juger après. gis nga loolu noonu dañ ciy tirer ay leçons bis bu ñu demee ba àgg ca tribunal bi ñu ne effectivement ñu ñu arrêté acharnement bi ñuy woowee acharnement. Hmm. ñu ñu arrêté yëpp joxe nañ ay preuves que ñoom liñ ñu leen di tuumaal ba tax ñu tëj leen ci kaso bi amul. grand convocation Ahmed Suzanne la ñuy xaar waay contexte biñ ko waxee contexte bi ko waxee ak ni ñu ko waxee. nii la demee donc ba fii nii. man dama gëm ne ñoom ñëpp ku ci taxaw tri dañ la naa loolu mais nag bu fekkee ne seeni ni tey <laughs> comme na nga xam ne noonu lañ jëlee woon Ousmane Sonko indi ko biir këram teg ko fa mhm. Sénégal ëpp na loolu pour jàmm am pour jàmm am mm. ëpp na benn nit ñu jëlee ko teg ko ci benn ruq ne ko toogal fii nga noppalu ñu lijjanti dëkk bi d'accord donc juste pour waxee loolu gis nga fu toll nii euh, euh, sànq dañuy brosser ci li nga xam ne seeni moom moo di problème parti Pastef mhm. man damay wax ni ci côté boobu mhm. neex a comprendre Nous rendons rendre service. rendre service à Pastef. Mm. parce qu'à un moment Pastef tas depuis que nous ci local yi di fait jëm législatif. Pastef. Euh, ñaar fait Pastef avant nous avons fait un nga législatif parce que nous moment comprendre tuñu monde, Pastef fan la est-ce que Pastef am bi moom mooy ñoom ak wala Pastef moom mooy Ousmane Sonko kese te Ousmane m'a donné pencher di dem moo doon ci côté Yewwi à un moment da nga naan est-ce que ni Pastef dafa ñew suq dugg ci bir Yewwi wala Yewwi mom mo sey ci biir Pastef mais Ousmane melni ku gaddu ñaari parti donc avec les deux parties mënatul won continuer dem parce que il fallait que mu bàyyi ben dem ci bi ci dess malheureusement. Mm-hmm. Pastef mënatul won continuer parce que idéologie Pastef ci côté yu baree bari ak seen i ay valeur morale yi nga xam dañ ko teg ci ñenn ñi nga xam ne dañoo ñëw dugg ci biir Pastef boot Pastef islamiste yeeg ñi nga xam dañu am ay valeur ay principe non damay expliquer juste am nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dañoo am ñoo xam ne si ni ni ay ay tarixe ci lañ bokk hmm, d'accord ci biir tarixa yi am na ay ñi nga xam ne si tamit am nañ fi ay ibaadoog ay ñeneen ak ñeneen ak ay salafiste ak yooyu yëpp kenn ku ci nekk gis na

gis nga sëñ Saliou un islamiste. sëñ Saliou c'est quoi un islamiste. bu demee bay wax dara da koy maîtriser. sëñ Saliou c'est quoi un islamiste. sëñ Saliou d'accord sëñ Saliou laisse terminer la. sëñ Saliou. waaw mais dimbali ñu ñun xamuñu islamiste xamuñu lan la. mais néew fi di xam nga. lan mooy vraiment vraiment nag sëñ Saliou. il faut il faut il faut sëñ Saliou. xam nga problème bi lan la. d'accord mënoo fi nekk accepté wu loo. non. dina ko leeral de dina ko leeral de. man de lu ma dama koy leeral. non xam nga xam nga. leeral leeral askan bi lu wax damay leeral askan bi leeral mooy bi Pastef tase du tey. waaw mais lan mooy islamiste la la Pastef tas na depuis ca Adji Sarr coowal Adji Sarr Pastef tas na bu yàgg dañ doon jàppandiku ci lu bari. ci lu bari ci li nga xamante ne ni. Mhm. moom laa la wax léegi ni idéologie wu ñenn ñi nga xam ni dañoo ñëw gëm na ñoom ak seen. seen cola seen comportement religieux seen ay gëm-gëm seen ay idéologie ak li ñu taxawee. am na ci ay yaa ngi yaa ngi tooñ de. waaw mais sëñ Saliou tooñ amu fi. yaa ngi tooñ ñu nekk ci tarixa yi de. yaa ngi leen tooñ de non ba pare ñeneen ñi wax sëñ Saliou da ngay perturbé fi mu bañ nga tooñ nit rek dama bañ nga tooñ nit d'accord accord pour dire quoi xam nga li mu xam nga li ma la bëgg a xamal chaque jour nga tooñ chaque jour nga tooñ kenn du la wax dara. donc dañoo toll foo mu wax il fallait que ñu officialiser ko mu jeex dem ci jàmm léegi nak la ci des moy manière bi mu amé mënon na amé ni mënta amé ni li sëñ Saliou di jéem démontrer mais sénégalais xamoon nañu Pastef tasna d'accord même wa Pastef ñom seen loolu xamoon nañu Pastef tasna donc nguur gi da lay les leader les responsables ci seen wàllu bopp. Mhm. xamoon nañu Pastef tasna d'accord d' te Ousmane mo leen gënoon xamné Pastef tasna so soo gisee coow li bariwul ci sen biir moy xam nañ ni ñom seen existé tuñu. très bien alors nangu lool sare vraiment nangu naa ko. nangu naa ko alors vraiment euh, Pastef boobu nangu naa ne tasna na qui qui vient de nous voir sur le plateau. <laughs> c'est ça nangu ne euh, Pastef tas on sait plus lan lañuy wax Pastef ou ex Pastef je pense que vous allez nous le dire mais euh, lan moy nek après cette dissolution lan moy nek le sort aujourd'hui des des des patriotes. Je nen nga may ma remercier la remercier ñi fi fekk ci plateau bi di am mbégte lool retrouver mon frère vraiment mon très cher frère Serigne Saliou nest pas, n'est-ce pas ah, hein? <laughs> qui a subi les foudres de, de mes amis là. Et alhamdoulilah je me ko retrouvé. Mm. a ah, di am honneur aussi partager plateau avec ak nit c'est quelqu'un que je suis depuis un certain temps et qui a émerveillé presque tout le Sénégal. Je vous nommais Pape Moussa Sow. Euh, N'est-ce pas, je koy féliciter, du coup, remercier encore ci liguey bi muy la démocratie sénégalaise. Ni muy léralé d'accord hein? Ni muy léralé euh honorable d'accord ak yow. Ni muy léralé mbir yi Sénégal. Je ko ci remercier. Bon, je suis pas là pour être d'accord avec elle. Donc euh, de remercier aussi mon frère. Je crois qu'il est non ne me coupez surtout pas. Ne me coupez surtout oui, mais pas. mais c'était juste pour rire. C'est la parole ne alors que non non non non non vous m'avez adressé la parole vous m'avez adressé la parole non non non, non, non, non, mais je comprends aussi euh, ils ont l'habitude ils ont l'habitude c'est dur y a pas de souci continuez remercier aussi mon frère Omar Faye que je retrouve également et Kader euh, avec qui j'ai partagé euh, un plateau je crois euh, damay il rek tambali ci wax est une formidable émission franchement c'est une émission que je ne rate pas que je regarde toutes les semaines que je regarde toutes les semaines ah, attention il hein. y, a des choses il faut revoir parce que quand même vous bëggee ce plateau am ben niveau il y a des chroniqueurs il faut il faut plus les mettre ici quand un chroniqueur va du coq à l'âne soutenir mais ça ça rabaisse le niveau de votre émission. écoutez bon c'était juste une parenthèse. non je m'adresse à vous je vous je vous donne des conseils n'est-ce pas.

loolu baaxul man loolu supporter. d'accord tu as vu la façon dont on m'a attaqué depuis que je suis venu non non non non non. d'islamiste et cetera. il a suffi que je wax benn wax nit ñi bëgg ma attaqué. Ce c'est pas important je disais je nous sommes dans une république qu'il faut forcément refonder gis une république bi dañ ko de a loi yi ñi ngi soog a xam ne dafa bëri loi yoo xam ne baaxuñu ci réew mi peut-être parce que nous appliquait avant, c'était des gens qui étaient au-dessus de la mêlée. C'était des gens qui appliquaient ces, lois-là de façon très intelligente. Il a fallu qu'un pouvoir vienne, de quoi appliquer, nous avons de quoi utiliser, de manœuvrer, de manipuler, pour que les Sénégalais comprennent que cette République, nous devons la refonder. ces gens-là, c'est eux qui ont perdu le président Macky Sall dès le départ man je faisais partie de ceux qui pensaient que le président Macky Sall la def miracle économique